ma yaakaar ak soxla yeeg dox dépense yeeg yooyu ak ñi daayira yi moo tax ma wàññi ko lim yooye bu ma leen ko wanoon gën a déedéet moo tax mu amoon cëru di téye ñaari kurus te li muy wax ci bii bokkul ak li muy wax ci bii te bii du tarde bii du tarde mooy borom ñaari kayit bii di xuus ci baarul xaqiqa bii di xuus ci baanu sariyaati ak a jafe ay mbir Cheikh Tidiane ne ki mën a yóbbu ci yàlla ci nit ñi mooy lisaanuhu bi zikrillahi naatiqun mooy koo xam ne làmmiñam fu mu toll day tudd yàlla oh. moo sa fokk ma sa fekk day tudd yàlla moo tax lu mu bëgg lu mu mos a bëgg yàlla bëgg fokk ko ci inna lillahi aradan isa arado arada laaw oh. dama am sama yaay ju baax ajaru tante Diop oh. daf ma ne man sëñ Babacar Si moo ma yar soxna soxna asukan moo ma yar alaaji ab dooma may wér waaye kenn laa alaaji alaaji ab Mansour rek laa gëm mu ne ah mu ne ma sama jëkkër aman ñang awa caam day tukki ànd ak alaaji Mansour bu daan tukki mag ñi dañ koy topp ma jóg fajar téyel ko valise bi ñu dem ba ci gaaru Tiwaawan ma daf yëfu daf seex benn socc fa kastalu socc bi jaf ma fii bi may wàññeeku te alaaji mën soo départ naa mag ña ma ñëw sama kër tëdd mu néewi yokk ba gisatuma sama bopp bi toll nii ñu dem wax ko sëñ Babacar si mu woolu benn docteur bu nekk Njaasaan bu man a faj docteur bi ñëw lu ne mu def ko mu të ba ñu ne dañ may saraxal damay dee gisatuma ñu wax ko seexul kaw bi bi mu wàccee ñu ne ko ah, sa waa ji kat da doon gunge alaaji Omar Ñang awa caam ca seen yoon wa keroog ba léegi ngeen dem dal fukki fan boo moytuwul boo fa yéexee mu dee nee na ñoo ko mamun sa mu ne eh tante du dee léegi ah eh day ah déedéet ah loolu ay caaxaan la ah nee na bi ma ñëwee bi alaaji mën soo dugg see ci néeg bi rek la sama yaram commencé yëg te yëguma woon ma ñëw mu ne ma ngaangal ma ŋaang nee na ma baaraamam bii la dugal sama gémmiñ gi ma yëg ngelaw luy génn ci diggante weer bi di dugg ci sama biir ca sa sa sa sa sa sa ca sa sa sa sa sa sa sa sama xol bi seet dugg yi mu teggi raay na ma baax na ba suba nee na ma xëy mu def benn tuuf yi ñu bëtt ko rek mu bës puut gi ma raay fekkatuma ci dara kenn moom koo koy seexul xaw seexul xaw inna lillahi aradan isa aradu ahadal aradallah yàlla dafa am ci góor yàlla yoo xam ne lu ñu bëgg yàlla fekk leen ci noonu la seexul xaw meloon man lisaanu ko bisikrillahi naatiqun fu mu toll tudd yàllaa ko gënal yëpp wéet ak yàlla 24 heures sur 24 yàlla lay bàgg waaye wa qalbuhu bi hubbillahi saadiq xolam boo ko xaree yàlla rek la bëgg maam alaaj Mansour bëgg lu dul yàlla dundul lu dul yàlla am na yoo xam ne bur woon a télé dinaa ko wax waaye su ma ko waxee su ma dee jàpp sama nopp <laughs> waaye kon bëgg yàllaam googu ma wax la ci lu bari balaa joo dugg ci xasida ñu lay seetaan de wa sirruhu bi wujudillahi waasiqu sekkereem dëgg bi mag ñi yéeme alaaji mën soo du dara wa sirruhu sekkereem bi wujudillahi waasiqu jàpp na ne fu yàlla ne yàllaa fa ne ku dul yàlla doo yàlla tawxiidam moo ëppoon doole lu dul tawxiid أفي الباسطات غير الله معبود بالحق أم في ما للغير فرزرنا فرض على الابن وشكر الوالدين فضوا بالحق أنفسهم ولغير وجدنا فرض على الابن شكر الوالدين ومولى الوالد البر يا أستاذ فرشف بيا الحق في سهوة للغير موجود فرد على الابن وشكر الوالدين ومولى الوالد البر يا أستاذ أنفد من جردون أبي البسيطة غير الله معبود بالحق في ما للغير موجود ورد على الابن وشكر والدين وكون الوالد البر يا استاذ سلبي سبحانه بالاله إله واحد صمد الله البقاء وذا داء في دخلي ضرب على الابن وشكر والدين وكوني والد البر يا استاذ ارسل بايا Sokapa. زواجي خاطبة ما في القراطيس تبيين وتجويد والآل وصحبه والأزواج خاطبة ما في القراطيس تبيين وتزويد والآل وصحبه والأزواج بالبعد القراطيسي تبييد وتزييد والآل وصحبه والأزواج خاطبة ما بالقراطيسي تبييد وتزييد booba mooy kër Paate Ja kër Paate pièce la woon pièce la woon ah bay dee ñu ne nañ ko may doomu alaaji Maalik yi ba xam ñoom nañ mat nañ ay sëriñ séeréer si ku fi jaar dee nañ leen ko may pièce la yokk sëñ Babacar mu ne gisi leen Amadou maa la ko ku fa timis fekk nga dee ñu ne nañ ko may kii ñu ngi nu Cheikh ñu ngi nuyu Serigne Cheikh. Cheikh Makki ñu ngi koy ziara suñu soppe ah, soppe ku baax yónnee na ma léegi yónnee nañu photo Cheikhul Qawmi bu ànd ak sëñ Babacar Serigne Mansour ak sama turandoo sa turandoo waaw ah, Maam Alaaji Mansour Seydi Tall Seydi Tall ñu koy ziara Seydi Tall di ziar nag Amirul Muminin lam da julbe mhm. ah Thierno Bachir waaw ah, ñëpp a ko sopp wallaay bi ñu yeggee bi ñu yeggee dex gi jësi tënk jësit ji du jësi du neen loolu yàgg ngeen dégg mag ñi di ko nettali mu ne eh Moustapha eh, si beekul nga dugg ci dex gi moo tarbiyee sëñ Moustapha si Jamil sëñ Moustapha Jamil Moustapha la ko daan wax waaw moo tarbiyee sëñ Moustapha Jamil wan ko yónent bi yaqasatan laa manaama moo tax sëñ Moustapha Jamil bari na ku ñuy coow séenoo pëndam boo bëggee xool takk ndeer walaaj mën soor a xoolal Seydi Jamil góor yàlla piirango fees dell ak yàlla na dégg ken du Seydou Diaby Mune ne dugal ci teet bi dugal ci dex bi mag ñi ne ko déet yow doomu baba keur ci ji mu wor la jox la ko fu mu dem and ak yow nga bëgg ko dugg ci dex gi mbaa yënga ne su duggee du génn mu ne eh dafa génn naa ah, xanaa dex gi xanaa jësit ji du nit xanaa du jaam Moustapha di jaam jësit di ci jaam ñuy jaamub yàlla bu ko laalee su eh, ko laalee xam fi la maa fekk ah, eh, na mustaf dugal sëñ Moustapha Jëmee dugg ci biir dex gi moo jësit ji ñuy fo paccax paccax paccax paccax ñëpp téye seen gémmiñ mu capp xalimbaam bind na afil ba si tati ne eh Moustapha Kandji Pape Moustapha eh, abal ma foofu bigal xalima mu abal ko mu ne afil ba si tati maa ndax am na kenn ku nekk ci dénd bii maabudun ku ñuy jaamu bil xàq ci dëgg xayrallaahi ndax am na ku yeeyoo jaamu maam ma alaaji mën sor foo jëlee lii mu ne jaamu yàlla ba jeex ci ma ko may soo ragalee yàlla lépp ragal la boo ñemee yàlla ku la warta yab la damaa ragal yàlla moo tax jësi ju laal sama doom waaw amul fi sama am fil ardi ci suuf amul xayra mawjud Mamoun Sow nee na boo koy wër ku yeeyoo jaamu te may dëgg doo ko fa fekk yàlla moomu laa wéetal ba lu ma bëgg mu fekk ma ca ku man essayel jël leen seen doom yi dugal ko ci jësi di xool ku ko alaaji mën soo digal ku ko do ku ci ku digal sa doom mu dugg ci géej gu jësit am ku dul alaaji mën soo nga ñàkk sa doom maa alaaji mën soo rek ko ko sañ yàlla fekk ko ci hmm. من سبحانه من إله واحد سمد دنا سلام من إله جبور واحد كي كن سمد كن يب جبلو مي فج شغل يب تجبلو لتكن بام كويسا له أجي نكرة دي كن يال البقاء لي دينا نتوق دي كن يتالي دوما فينا يالا فينا يالا مي فينا سما جنا رغم ماما مايلي وسنا وسنا يالا موم تق فيه تخليد فيه أجي نكرة دي سنو برام تخليد تق غو خمنا دي سخبا إلى يومي حمد الله حمد الله تنتي نيال نالله نيال يالا wali man ak ñeel buur ba nga xam ne xas saxoo jagleel na ko sarafan tedd nga ah, maanay lu xooli si waa fi dëxri mawjuud ñu ne kookan la mu muhammadun bu ma sante yàlla il faut ma julli ci bi safatul axyaar yi lu yàlla bind moo ci gën a sell saafi inaa moo ñu ramu ëla yowmal xiyaam alayhi xayru salaamin yàlla gën ji nuyoo nekk ci moom fii ci moom tayidu boo xam ne dafay dakkatu ilaa yawmi diin waaye xam nga lu ma ca wal aali wa sahbi ñu ne alaaji Mansour lii ngay tagg yàlla ak julli ci yonent lan la mu ne lii Mamadou Mansour laa tudd sant si ñi sant si bari nañ ñu tudd Mamadou Mansour bari nañ waaye li may def ku ko mën a yombul dama leen a bëgg wax fu ma ko jëlee ñu ne ah mu ne mën naa leen man na fi'lu maadin mabni ala al-fatati la mahalla lahu min al-i'rabi wa fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu huwa alaaji Malik dafa nëbb faayil ja alaaji Malik ñu ne ah mu ne mën naa leen man na xéewal na alay naa ci ñun lan lañu seex alaaji Malik mu ne yàllaa ñu xéew allahu jab bi seyqin ci sëriñ sëriñ boo xam ne dafa nekk sëriñ malaaj maali ku ñëw ci moom doom la lay jàppee mm. dafa toog ca dafa toog ca ca num tuddati ca njaar